waa ok jërë ngeen jëf mbokk yi kon bi ngeen gisee jotaay boo am solo bi nga xam ne Serigne Djily Abdoul Khadr mbakke moo ko toogee nuy ñaan mu yàgg lool te ànd ak wér. taalibi Serigne Fadilou yi waa kër Serigne Modou Moustapha Fadilou yi di ko fekk ci jotaay bi di nemmeeku mu ànd njaboot gi ak rakkam ak mboolem ku mu bokk Serigne Modou Moustapha Fadilou gis ngeen noonu taalib yi wéy di ko siyaara ngir rek ndokkeel ko ci bis bi nga xam ne mi ngi koy taxaw te di ko defal kilifaam nga seriñam ba sangam ba Serigne moodu Mbacke sa Falilou di ko ñaanal bu baax sama borom yàlla doole ay leeram taas bi ci barkeem waaye yàggal fi jëwriñ ji ak mboolem ñu bokk sëñ bi ci biir lool nag rakkam ji nga xam ne kenn la ci moom di sëñ Modou Xari Mbacke moom sëñ Modou Moustapha Falilou mu jox ko ndigalul mu yëkkatee ay kàddu yu jëm ci mboolem taalib yi nga xam ne ñooy fàttaliku ak màggal bi sëriñ bi kon Mbacke bu ñu la nuyoo siyaara la yan kàddu ngay dénk taalibe yi ci wàccaayu bis bi nga xam ne sëriñ bi doxal na ko nii ndax ku ne miinoon na bis bu daan ñëw ñu mbaas ci mbedd mi indi taalibe yi génn li ko sabab ak li ko soppi mbàkke lan nga ñu ci mën a indil auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ñu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem koo xam ne suñ jotaay bi yaa ngi koy teewee moo xam nga ne ci réew ak ci bitim réew di sant yàlla bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek bis bi bisub ngërëm la boo xam ne dañ ko daan sëñ bi da ko daan waajal jàpp ko ngir muy bisub ñaan ak fàttaliku suñu jàmbaar jooju di seex Moussa Falilou ñu ko daan def nag at mu jot mu daan doon lu yaatu lool waaye jamono yii nag ak xew-xewi jamono tax ak soppi ko am ci comme ni ngeen ko xamee muy bis boo xam ne nag bu ne su koo bàyyi ndax bisu ngërëm la boo xam ne Cheikh Mamadou Moussa Fall moo ko daan màggalal boppam di ko woon ndigal ñu koy màggal mu doonoon màggalug la 7 juin lañ ko daan woowee dayratu salaam moo ko daan màggal sëñ bi leen joxoon ndigal li waral bis bi nag mooy bi jumaa ji noppee biñ koy jullee Serigne Fallou da ko woon Cheikh Moussa lu ne ko Euh, sant naa la bu baax gërëm naa la bu baax a baax ndax jumaa jii de jox nga ma ci lu toll ni ab soroor dama bëgg nag nga euh, tànn soroor bu la ci soob nga féeteeg moom nga xam ne saa yoo ko rombe rek nga xam ne sa jëfa ci ci tënk rek ngir bañ a bañ a bañ a bañ yàggal jotaay bi nee na mu ne ko tànn naa soroor bi féeteeg yow mu ne ko xanaa taar xooy-xooy ji ci nekk tax mu ne ko déedéet lu féeteeg yow dama gënal lu féetewut ak yow bis boobee nag sëñ Modou ne amoon na ci ngërëm loo xam ne mosu koo am ci àddina ku ne xam na ne jumaay Touba euh, am na lu ci sëriñ Touba waxoon ne képp ku ci feeñ dootoo nëbbu joxe woon ndigal la ngir ngir ngir ñu moo ngir ñu euh, taxawal ko daanaka bokk ne wax nañ ci ne bokk na ci mébét yi sëriñ bay woon loolu nag jëf la joo xam ne bu ci amee lu toll noonu mbégte lay doon moo xam ne ci moom amul fu mu yem mu ne woon nag na ko fonk te fonk lal ma ko te fonk leel leen ma ko la du bisu bi fi sëñ Modou génnee àdduna du bis bi mu génnee àdduna waaye da ca taam mooy bis boo xam ne ci la ko ci la amoon ngërëmul sëriñ Fadilou te ngërëmul sëriñ Fadilou mooy ngërëmul sëriñ Touba moo tax nag mu joxe woon ndigal saa yu jotatee ñu màggal ko bi mu fi jógee nag euh, sëriñ Jili di dàkk ak bëggam di xool loo xam ne xam ne ne lii bu ko defee dana ko neex mu feddaliwaat bis boobu loolu mooy sababu màggal gi ci ci ci tënk. xam nga sëriñ Modou moom euh, ku ko xam ne bi mu nekk lenn lu jëm ci boppam. wala lu jëm ci ay njabootam daaw ko wane moom Sëñ Fallu daan wane lim daan wooteel boppam mooy bisu màggalu Kazu Rajab màggalu Kazu Rajab gi nga xam ne euh, Sëñ Fallu ko ci joxoon ndigal ne ko na sama bisate fonkal ma ko bis moom la daan woote waaye bii moom da cee joxoon ndigal waa daayiratu salaam ne leen sama bis bii kat ci la am ngërëmu Sëñ Tuubaa kon nag na ngeen ma ko fon na ngeen ma ko fonkal ñoom ñoo ko daan màggal waaye moom ci boppam moom lam daan woote euh, Kazu Rajab la ndax Sëñ Moodu moo daan doxee noonu léppam Sëñ Fallu loolu musul wóotal boppam dara musul waneel boppam dara lu masaan a rëy lu luñ masaan di coow ci moom buñ ko laajee danañ du ma ci dara Sëñ Fallu rek laa bis bii nag woote gu toll nii moom ginnaawam la ko Sëñ Abdou Khadir mii mii ko fi nekkal euh, woote ngir dàkku ak bëggam. dégg ma Sëñ waaw digg ma Fallu day sëñ bi lu lu yaatu lu yaatoo yaatoo yaatu day loo xam ne ndax euh, Sëriñ Fallu ku ne xam na ne moom ni mu taxewoon ci yoonu murit wooteel Serigne Touba bisam bu toll nii ba ba tëpp muy 18 safar xam nga Serigne Touba bi muy joxe ndigal dafa woote woon fu waaye nekk na ko fa defee. Mhm. waaye bi Serigne Fallou la ko woote mu mhm. euh, ku ne la nga leble rek loolu lañu lay fay. Mhm. ginnaaw gi ku ne xam na fu mu tegoon Serigne Modou. daan daan daan diisoog moom ci lu bëri ay mag mag ñu bëri nettali nañ ci euh, taxawaay bu sëñ Modou amoon ci euh, nekku Serigne Fallou ba mu demee ba jóge fi itam. ku ne gis nga taxawu njaboot gi euh, taxawal yeesalaat kër yi yeesalaat daar yi ndax ak nekkam la tàmbali woon liggéey bi bi suñ fallu wootee jumaa ji sëñ Mourou dafa sañ ci ay dëkk yu bëri saam yebal ca la bokk yaman ca la bokk doon fa bay saa yu masaana bay mu mbay mi ñoree mu jël mbay mi ak fas yi ak dong yi jébal sëñ Fallu wutiwaat leen bu déwénee lii ma lay wax nii lii moo doon sabab lii moo doon sabab lii ba mu noppee nag ci la ci la ci la ngërëm lii ma la waaye moom digg mënte ba fi Sëñ Fallu yu nekk mosul wane boppam ci dara bi mu fi jógee itam lépp luy wane Sëñ Fallu la koy wane ku ne xam ne bëri na ci xisa yu yu yu mu jaar ak Sëñ yoo xam ne euh, bëri na benn bi am na bu ñuy faral di nettali mooy bi amoon daaru mar naan te Sëñ Fallu waxoon na ko weexal nga mbët moo xam ne ku ko weexal sa bët sa sa bët dootu xonq mukk ak yeneen jaar-jaar yoo xam ne euh, xam naa bu ñu ko bëggoon a nettali dana dana dana dana xaw a yàgg waaw jamono yi Sëñ Sëñ Musaa Fallu de moom ab sëriñ la woon boo xam ne dafa doonoon ab sëriñ waaye ku déggoon jamono la ndax boo xoolee euh, li ñu wax décentralisation bokk na ci sëriñ ji ko njëkk def ndax dëkk bii ma la wax léegi muy Sam Yabal euh, sëñ moodoo ko sañc fii ñu nekk nii di defee euh, waxtaan wi itam moo di xaayira xam ku dégg xaayira rek daal dem sëñ Modou fii ma fii ñu nekkoon nii tey ba muy ba si ba ko suñu fal di jox ndigal pour mu sanc ko loolu yàgg na lool mu sanc ko dëkk fi ak njabootam guy lonk ko lañ ko daan woowee ba mu si jógee am na beneen dëkk bu mu sancoon ndax foofu la si moo dëkkoon ba mu fa jógee mu ñëw ndindi ba mu fa jógee nag ci la sanc dëkk boobu ñuy waxee yaman taw feex la tudd tey Serigne Maxtaar mu sëñ moo ko féete tey ba fa jógee mu sanc euh, saam yabal saam yabal nag ba ko sancee sëñ Fallu ñëwoon na fa ndax ba ñuy ubbi forage ba sëñ Fallu ko léemu si woon bi ginnaaw sëñ Fallu nag ci la sanc dëkk boobu ñuy wax tuubaa Aliya ndax daf doon wax ne pour wane ne sëñ Fallu mën na kanamam man ginnaawam moo tax ma sanc Touba Aliya ndax ba may sanc Sam Yabal boobu nekku sëñ Fallu la xëy na mënoon nañoo wax ne nekku sëñ Fallu la ko sanc waaye pour wane ne sëñ Fallu mën na kanamam ginnaawam moo tax ma sanc Aliya sanc fa nag di defar fa ay doomu adama yu yu yu bëri lépp lu fa war tamit ci infrastructure mu def ko fa dëkk bu ma sanc rek boo demee da nga fa fekk da nga fa dana fexe ba forage am fa dana fexe ba yoon am fa dana fexe itam ba def fa poste de santé boo xam ne waa dëkk ba ca la ñuy fajoo doonoon nit ku am yërmande doonoon nit ku amoon ndimbal itam. Mm-hmm. ku ne wax xam na ne mbiram siiw na lool ak li ñuy wax moodu-moodu yi. Mm-hmm. waaw ba mu fay dem booba dëkk bu jafe la ba muy dem it tukki seeti moodu taxu koon yóbbu booba danaan def at mu jot mu dem euh, bitim réew noppalu benn bis nag mu ngi nettali ne dafa ñëw France moom ci boppam moo koy nettali mm-hmm. bi mu ñëwee France dégg dëkk bu ñuy wax Lyon booba dafa tàng lool ndax ku fa génn dañ lay jàpp. boo am na ku ñu wax Cheikh Niang Serigne Cheikh genn fan mu ko tuddee. Euh, wax nañ ne moom ba mu ko déggee dafa jiital sëriñ Falloum si Mourtala ñëw fekk sëñ bi Paris. Mhm. bi ñëwee nag ñu ne sëñ bi dañoo bëgg ñëw fa ngir mu ñaanal leen mu leen moom loolu tax koo jóg. ginnaaw gi nag ci la ñuy ci la ñu koy euh, naxtaan ba turu sëñ Fallu sëñ Fallu suñu Mourtala mi fànn bi ak tuddee gu ñu ko tuddee sëñ Fallu ak ni mel ci sëñ Fallu mhm. tax mu nangoo dem Lyon foofu la foofu la sababu tukki yi tàmbalee daanaka mën naa ne. ba mu demee nag ak jaloore yam fa def ndax ku ne xam ne ne tubaab yi moom mhm. seeni loi dañ koy tënkal seen bopp maanaam daanaka étranger yi taxu leen a jóg ñoom ñooy xool ni ñu bëggee seenum réew tënkee nii. te it nag comme taalibe yi Serigne Touba yi moom ala kulli xaal danañ fa dem ndax Serigne Touba waxoon ne inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li malikin mudarra waxoon ne tubaab yi danaa waqanteek ñoom ci seeni suuf pour waqante googu dëggu nag faw ñu yaatu fa ndax faw ñu daje ñu ne fa war faa mën a ami kër faw ñu war faa mën a ami oto faw ñu war di mën a daje te jamono yooyu tubaab bi nanguwuñ ko ndax booba nit ku ñuul tàmmuñu koo gis. loolee nag mbirum baatin dëgg moo ko war a mën a samp ndax euh, euh, li Sëñ Tuubaa wax mu ala kulli haal mu am. waaw ne Sëñ Tuubaa woote ne yaa ahlal barri yaa ahlal bahri ujudul bahri bahri saxaay woote boobu ñëpp ci lañ bokk fu woote bi lislaam bi àgg rek woote bi Sëriñ Tuubaa bi war na faa àgg. te ñoom comme gëmuñu yàlla euh, seeni mbir du yomb noonu ba sëñ bi ñëwee nag jëfandikoo fa baatin boo xam ne day firndeel rek doole Sëriñ di firndeel yi ñaan gi Serigne Touba waxoon suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Moustapha tëj taxidu loolu euh, sëñ Modou Moussa Fall bokk na ci ki firndeel euh, waxi Serigne Touba yooyu ci bitim réew. waaw ginnaaw bi ñu noppee gi Serigne euh, Moustapha Fallilu waaw sëñ ji di toogee jotaayam moom it jaar tànk yi Serigne Moussa Fall du jaaroon mooy ci taxawaay ak fas yéene itam li sëñ bi naaloon lu ci bëri mu àggale ko. lu ci bëri it muy mu def ci kéem taaxil kàttanam góorgóorlu ci bu baax a baax ndax adduna moom ku fi jóge ku ne rek euh, dana am mébét Sëriñ Musaa Fall yàlla baaxee woon na ko ba waxoon ne ne man bàyyiwuma mébét lu ma bëgg def rek lu ma bëgg def rek def naa ko sant naa Sëriñ Fallu bu baax ndax lépp lu ma bëgg def rek def naa ko loolu nag ak jagleel la waaye sëñ bi it taxaw ginnaawam moom it euh, taxaw ci njaboot gi di góorgóorlu kéem taaxil kàttanam projet yi nga xam ne moo waroon a ci kër gi mu yu ci bëri ko dëkk bee di Sàmmi Euh, fii ci xaaxir tamit ginnaaw gi ginnaaw si Moussa Fall lu jumaa ji fi nekk sëñ bee ko fi def ak eh, yeneen projets yi comme fii ñu toog nii ak yeneen yoo xam ne naal na ko ñi ñaan suñu borom mu àggale ko ci jàmm loolu daal xam naa ne mooy li ñuy li ñuy tënk ci lu gàtt bu fekkee ne amatuñ beneen euh, question bu ñu war a laaj euh, jërëjëf xam naa ne waxtaan wi moom xaw nañoo bett nga xam ne lu ci lu ci dëng rek ñi koy jégalu Euh, di sant nag bu baax a baax mbokki taalib yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp ci magal gi ci turu sëriñ bi di leen gërëm di leen ñaanal suñu boroom yokku seeni xéwal ñi teew ko at yu bëree bëree bëri te suñu borom lépp loo xam ne ñaanal nañ ko Cheikh Moussa Fall lu suñu borom jot la ko ci yool ba jot la ko ci mbooleem njabootam gi nga xam ne ñoo jiitu si Euh, jamono yi ñu génn rek dañoo am aw aw aw tisuu fi am mooy suñu frère Serigne Xaas génn àdduna ñoom it ñu ñu koy fasaaleel bu baax a baax ci bis bi di ci fasaal it mbooleem njabootu Serigne Modou ko jiite gépp mooy góor ak jigéen mag ak ndaw di leen sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñëwoon it ci couvrir lu mel nii euh, ci ndigalul Serigne bi euh, di am mbégte bu baax a baax di leen ñaanal ñu teew ko ay at yu bëree bëri lii fi nekk nag di am mbas nga xam ne moo tax tey ndoje yu bëri ñi ñi ñi ñi ñi ñi ko ñi ñi ñi xatal ko mhm. yàlla na ko suñu borom jëlee te bu fi jógee suñu borom euh, yokk defal ñu ay xéewal ndax sa yaj'alullaahu ba'da usran yusran di ñaanee li mun Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanee li mbooleem njabootu Serigne Touba gépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah barakallahu Serigne Modou Khary Mbacké ibnu Serigne Modou Moussa Falilou li la sëriñ Jili Abdul Xaadir tànne woon ci kàddu yi ba jox la ndigal wane nga ko tamatal nga ko sëkk ndax xayrul kàllaama xali wa dalla niru na lu gàtt waaye fees na della ak njëriñ te jàngale nga ci kan mooy sëriñ Modou ci taxawaayam diggam ak sëriñ Fadilu taxawaayam diggam ak sëriñ Touba waaye taxawaayam diggam ak njaboot gi ginnaaw loolu itam wan nga ñu ne sëriñ Jili mii mu fi bàyyi du biyaa fuus sëriñ bi samp na ko def ci moom li mu war a def ci te bi mu ko wanee na mën naa taxaw ginnaawam taxawul ko liggéey bi ba liggéeyal ko ñaari juma muy xaayira ak saam yabal eh, ci itam mi ngi ci yeneen mébét rafetal lool sa nekkin ak moom niki ko ñi mu bokk si mbir ñëpp rafetale ba tax bi ñu ñëwee nuyu ko rek mu yëkkati kàddu yi dénk la ko kon noo ngi sant mbokk nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Istikhama TV ak dañu bàyyi xel ci waar wi TV lii moo nekkoon kàddu yi nga xam ne Serigne Jili Abdou Khadre joxoon na ko Serigne Modou Xarit mi rakkam di jëriñam bokk ak moom liggéey bi mu yëkkati ko ngir taalib yi mën ko barkeeloo ndax albarakatu lil mutabarikin yàlla na yàlla defal noo jóg bàkk Mustafa aouzu billahi bismillahi tee noo jóg bàkk Mustafa man Bamba Mbàkke mi satoo ci yow maa la ko way ndax amuñu kudul Mustafa